ginnaaw ci at ci ginnaaw waa quartier Afia bu Yeumbeul Sud doon dund insécurité bu mag ndax ay manque éclairage public dem sax ba askan wi di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ngi doon dund. avant lamp yi xanaa sondeel insécurité agresseur jongal nañu fii suñu ay doom fii suñu ginnaaw fii suñu ginnaaw kër gi agressé nañu fi xoj nañu fii sama wujj peccor go fii ma taxaw. ndax ay ñàkk làmp xoj ko ba mu yuuxu ñun ñëpp ñi daw sàcc day ñëw sama goro ba max nañ ko fi suba teel sàcc ñi daw yuuxoo gisuñu fu xam ñu fu ñu war aw fii lëndëm këriis këris lu mel nii daal moom masuñu ko am fii ci ay kàddu gis nga lii de ñu ngi koy soog a am yàgg nañu fii suñu masaana génn ñun ñooy demal suñu bopp bitik ba amuñu gone gu ñu yónni ndax fii dafa lëndëmoon minen noon min kaalata ko wonaani min kaalatan ko komin ji moor waɗi golle jooɗɗe daraade mbo o woppa haajuji makko fof ambuji makko fof o ara o daro e nder yumbol o yaada yimɓe ɓe omo fewda lampaji kala caliɗo lampaji ɗi pewde ko haasidi daka so lampa ala waroɓe yimɓe ɓe mokkinto so yimɓe gaari mbara ɗumen nawa kalisaji men so wi omo itti ɗum noon neɗɗo wi mana o ittita ɗum on ko haasidi ko min sambayro siwi noon yo allah renmbo yo allah teddinmbo ci fan yu néew benn responsable APR di Modou Mbène Diop jël dogalu daal taal lamp yooyu yëpp donte kii di dëkk boobu di Bara defu ko mu nekk loo xamante ni askan wi rafetlu nañ ko donte sax kooku di maire bi daal mujjee porté plainte mooy Modou Mbène Diop ci yooyu action nga xamante ah, ni ñuy wax ci Modou xanaa di ko sant di ko gërëm ndax ñun dëkk nañu fii man fii xam nga kañ laa fi ñëw 98 laa ñëw fii ci koñ bii ba suñu jonn yàlla tey boobaak am na ñaar fukki at ak ñaar lu mel nii lu mel nii mësuñu ko am si koñ bi guleet ci Modou Mbène Diop mii ñi soog a am lu mel nii ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ca kaw ca kanam bu soobee yàlla ak yonent bi moom mooy suñu maire yëmbal sidd fii lépp bari na koñ baa ngi ni leer naññ naññ naññ ñi ngi koy ñaanal ca kaw ca kanam di ko ñaanal bu baax a baax a baax Modou Mbène moo baax moo gore lépp lumu mu mun ak lu mu munul mu ngi koy defal waa yëmbal sidd dégg fii kenn ñemul woon génn bu ñu bu ñu no déggee barki démb sama portable doom lañ fi jël ñu topp waa ji soriwul de waaye kenn na koo jàpp ndaxte dafa leen dem gis nga tey yëmbal sidd yëpp leer na barki demboo njaay ay ton soble nañu ñu andil andil ñu ay mbubb yu rafet nga xam ne boo toggee añ ba pare nga sol ko sa jëkkër dina kontaan képp ku la sopp kontaan kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla mi nga xam ne moo yore moo mun yàlla na ko yàlla fay xolam amen jetta allah nelama jetta huleysi e gaajo sabu hunde fof ne waɗi sababu sabu ala sabu ne ala hunde wodani ko kanko jogui a addude mbo o fewdiro ha feewi o waɗi hen lampaji makko omo walla yimɓe miskineɓe o addi soble o addi pompitere o addi kalis o rokki yimɓeɓe yo juldu ɗum noon so tawi a wi aɗa waɗani ɗum aɗa wona haasi walla so yimɓe kaali mettina a waɗata ko fof ko waɗi ko sa waɗani ɗum min kalat ƴeewe leegal ngal hannde nibbere ari gasi ha laaɓi te mo addu lampaji goɗɗi kadi o fewno ko foti fewdude ko ha feewa ɗum noon tinno ɗe dokkemo duwaw yo allah renmo a ah, masane ci ay kaddu gis nga lii de ñu ngi koy soogaam yàgg nañu fii suñu masane génn ñun ñooy demal suñu bopp bitig ba amuñu gone gu ñu yónni ndax fii dafa lëndëmoon waaye fi mu ne daal sant nañ Modou Mbène sant Ulay Sow mi ca kaw ci kat. ci wàllu woowu nag bu mel ne action yooyu tax na benn mbootaay bu mag bu nekk ci yëmbal sud daal di mujjee bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Bara Gaye dem topp ci ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy Modou Mbène Diop. ñu nekkoon nag si ginnaaw Bara Gaye di ko jàppale man su ma la nee yow la rek yow la doon nan ma jéem a ommat di ma dugal feneen waaye ki ma njëkk gis rek man kooku laay jàpp te yàlla xam na ni su ma la jàppee jàpp naa la décidé nañ pour ànd ak yow yow la ñuy àndal. di jàpp fii man da xalaatuma ko man li may wax chaque jour sama bopp laay waxal ndax sama bopp laa xam ndax sama carte maa ko moom te su ma la nee yow la yow la li nga bëgg lan lay bëggale su ma la nee yow la doo ma déggaat ci keneen man noonu laa mel baara gay ba ma ko joxee nopp moom rek laa dëgg man moom rek laa gis ba ma demee tamit ba yàlla dogal ñu jàppale ko jàppale ko ba mu toog keroog ba muy def sargal bi fii xanaa ba mu waxee ba pare cappaandaw li moom Modou Mbène Diop daal na fësal bëgg-bëggam ci biir Yeumbeul Sud muy liggéey pour Benno Bokk Yaakaar jël mairie boobu euh, ci 2024 bi ñu jëm kay nag li fi indi rek mooy waxtaan ak yéen ndax li Balla wax Balla wax yàlla mu dañu dugg ci politique jàppale son excellence le président Macky Sall te aussi loolu président woote ñu pour ñu jàppale ko ci daf ñu ci fekkoon ñu koy def parce que ñu yëmbal lañ dëkk yëmbal lañu am kon lépp lu koy jagal lu tax yëmbal baax rek ñun ñu ngi ci ñu ci loolu comme ni nga waxee di gërëm suñu frère Amadou Hott di ko baax bi mu ñëwee yëmbal yi yàlla daf ko ndombal tànk li mu man mi ngi koy jéem ci li muy def yëpp mooy kan jàppale son san le président Macky Sall loolu la ko président Macky Sall sant mi ngi koy def kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax ak képp ku fi nekk di politique nekk ci parti benn Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall ñu lay gërëm ñu ne ko Abdoulaye rek yàlla yàlla dogal na amaguñu doomu tànk ci état falaguñu état Macky Sall falaguñu waaye aussi waa dëkk bi aussi falaguñu kon nag li ñu am rek mooy que ay ay citoyen la yoo xam ne dëkk ci dëkk bi am yéene pour defar dafa boobu nag loolu moo tax ñu dox ñu askan wi waxtaan ak ñoom dëgg mooy di leen yee di leen xamal li xam ne mu ngi koy seen muy ñëw jàpp nañu du ñëwee dana nekk liñ daloon. Euh, ci jamono yu weesu ci juróom-ñaari at yi bañ demaat ci ci liñ jëm. donc loolu tey ñu xam ne rek tey li tax a dëgg dëgg mooy que ne askan wi nañu teew jàppale son national le président Macky Sall ba ba ba élection jëm muy 2022 maire bi nekk ci loxoy président Macky Sall. li def it lu ñu gëm la bu gëmul woon du ko def nekkul loo xam ne rek campagne day jóg nga jóg dem ci nit ñi bu paree mu jox déedéet ñun dañuy jóg pour taxaw askan wi am yéen xam aussi yéen bi président Macky Sall am ci askan wi. loolu moo tax aussi ñu engagé ak moom pour jàppale ko ba li mu bëgg ci yëmbal gi li mu bëgg ci Sénégal yàlla dafa ko mais ñu bëgg ci yëmbal dafa ko kontaan nañ trop Balla gërëm nañ ñu nañu nañ seen taxawaay GIE bi nag xëy na comme li may wax rek ah président falaguñu dëkk bi falaguñu danañ jël suñu cent mille francs def ko ci kees gi rek jàppale leen ko ah ci tabaski bi waaw xam ne dara nag xam nañ ne fekk nañ ko fi. li fi indi fekkal fi lu ko mais geste la boo xam ne rek peut être comme tabaski baa ngi ak yéen yéen a xam ne koy def loo xam ne dañ koy jàppale seen kees ah, ngeen aussi ngeen góorgóorlu def ay projet projet aussi mooy que ne yàpp naa ne gërëm ko xam dem ba aussi ngeen di financer ay autofinance baa xam ne seen biir la jógee te loolu ji nga xamante ni askan wi soxla nañu jàppale ci la responsable bi di Modou Mbène Diop jël dogalu dem saytu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan yëbal dund ngir andi ci ay saafara ci loolu nag def na action yu bëree bëri jëm ci groupement de famille association yi waaye tamit ci fête tabaski bi ñu jëm ci loolu ci yooyu nemmeeku nga xamante ni mi ngi koon def ci la ko soxna Mbène Fall di doom ci sëñ Modou Aminta Fall daa dalal ñaanal ko ci li nga xamante ni mi ngi koy def ci biir Thiaroye rawatina si kër nekk foofu ñaanal ko tamit moom am ndam ci li muy